Wade kenn ëpp koon charisme waaye yàlla ci boppam mooy ñëw xool fu dara ne war mu def fa dara ay mëninam la mag magul yàlla wala yàgg na ak yàlla mm. te ku yàgg ak yàlla yàlla dina la jox sirru bu jommal ndaw ñi wala am na kon soo ko bi mu ñëwee yàlla moo ko préparé mu fas yéene génn sénégalais ci lu nekk ñu jiñ ko lu rëy yàqataan waaye léegi bañ la génne yàqataan yemuñu ci yàqataan bi de ñu ne oh danga doon menacé ak say armes man ma jàpp ni sax suma ma toogoon jël sama tama war a tëgg war a tëgg sama loxo la layu fii ba muy waxatu boo xam la ak di yor arme ci logique xel dañu ne la psychologie mooy xel mi xel mi nag moo dirigé doomi aadama bi ndax moom moo lay différencier ak mala bi. Mhm. ndax dañu ne avoir amal une bonne attitude nekkin ko rafet psychologiquement muy xel moralement muy xol mhm. kon physiquement yaram bi la mhm. Sonko wax ma lan la am comme yàlla duñu ko tooñ ñaar yoon wala. Sonko bu doon li ñu ko doon wax lépp début ba ba fii ñu nekk lépp dëgg la nan la yàlla di ànd ak moom waaye tey paa yi topp ko mënoon ngaa toog fii jugé na waaye paa yi ko topp yëpp dañuy naax wala naaxuñu. Mm. xale yi topp ko nag kon lan lañu dañoo dañoo inconscient xale yi gën a intelligent jamono jii waaye jigéen ñi ngeen topp nag li ñuy yaay moo tax ñu far Sonko déedéet dañoo xam là où se trouve la vérité ñu ànd ak moom mm-hmm. ci biir wàllu woowu it lañu ko doon jiiñ ci garde à bi mu jur lële ñu noté teg. mu ñëw ñëw ñëw ba fi lii xew fii nga xamante ni moo nekkoon Ndakaaru ba ni mu demee def nemeeku kiwam bi jógee Ziguinchor waa Ziguinchor jommal leen ñu bàyyi ko ñëw ñu ne dañuy dem gàttanu colis bi jël ko jaga-jagatee ko violé li nga xamante ne mooy ay droit ñëw ko dëxañ ko tëj ko ci biir kër gi ba pare na ko kenn du seet si ay avocat am nga ne ko duñu la seet si fii ci Sénégal ay sëriñ nga ne ko duñu la seet si magi Pastef ak maire Pastef yi nga xamante ni bu ñuy dox sax dañuy jàppandi ku ci nekk di kottante ndax mënatuñu ne dañuy seet ñu ne la doo leen seet nit ñi faatu ci nga ne noonu ñi faatu matuñu lii te yàlla ci borom borom bi si boobu nee na maanaam benn bakkanam rek ku ko ci faatu rek yow am nga ak moom lu rëy. ñoom ñuy toog bay naan noonu cest à du fukk juróom la. loolu sax du woon yoon autorité yi di di ci di ci toog di ci attardé benn bi rek dara la. Mhm. te benn bi defet la ci ñoom. Mhm. quoi qu'on puisse dire Abdoulaye Wade a eu grandeur ndax grandeur weesu li mu waxoon. jeune ne m'asseoir jamais sur les cadavres pour entrer au palais. Mm-hmm. mais du ma génn aussi ci ci palais bi di jaaraat sur les cadavres. bi ñu ñëwee taxaw ne ko Abdoulaye Wade amuloo droit lii a Wade dafa ne leen waaye d'accord man maa ngi génn par la grande porte waaye président Macky Sall nag comprendre jeunesse bi ndax bu comprendre jeunesse bi li ko téye moom moo ñu yeew ñun ñëpp. Mm-hmm. yow yaa ne man julli naa ñaari ràq yi ba pare sëlmal naa. nga jekk ba càgg ne sax est-ce que sax moom ñaari ràq yii sax du ma ci toftal beneen bi. Mm-hmm. <laughs> nee na ñett déet waaye nga am ñu la dar ñoo xamante ni. Mhm. ay magub saay-saay lañ. Mhm. ay ñoo xamante ni kenn xamul fu ñu jaar ba ba nekk député mhm. ñëw ba nekk nag ci plénière nga xamante ni foofu la ñëpp war a taxaw di xaar lan la ñu war a jël comme décision ñenn ñi ne la yow loo fi indi ñu voté ko duñu xool du duñu lijjanti muy benn nga indi fi ñoo xamante ni ay saagakat lañu woon kenn xamul fu ñu jógee nga ñëw taxaw ñu jàkkaarloo ñëpp naan ci loo leen ne. <laughs> parce que yaa ngi ce que yéen ngi ci jàmm ci loo leen ne. mais ak kan la ñuy am sérieux day nuyoo sérieux ci boppam moo amul assemblée nationale ndax dama ne la séparation des pouvoirs bu ñuy wax amul séparation de pouvoirs bu amoon Macky Sall du jël loxoom di dugal si si pukaaje bi ak di koy dugal ci damadaa bi ndax boo demee fu de assemblée nationale ka fa nekk di président assemblée nationale loxoom président Macky Sall moo ca nekk la preuve ak Mimi Touré ak la fa nekk gis nañ ko. ñoo lépp. ñëwal fii ci état ci ci ci ci Antoine Félix lépp lu mu wax lañ ko ko waxloo lépp lu mu def dicté préparé la kon ana séparation des pouvoirs réew moomu dama ne la bu fekkee ne dafa am koo xamante ni politique c'est mag la muy Thomas Sankara bu ñëwaat yàlla def ko ci xolu nit ñi nga gis ni dëkk bi bu ne woon sax ba fubal ñëpp fubal bu bu jugoon lu mu wax rek maire yi def ko paa def ko réew moom nag bu amee ku mel noonu yàlla moo ànd ak moom te ku yàlla ànd ak ñëpp war a ànd ak ñoom bu ñu bëggee jàmm stabilité réew mi ministre président Macky Sall mémorandum yi ñoom ñu bind xam nañ li tax ndax li ci gën a doy waar mm-hmm. comme ni ma koy waxee force occulte yooyu ñuy wax xaw ma lan mm-hmm. xanaa man ñoom ay invisible lañ wala dañoo tax ay téere yoo xamante ni force de l'ordre yi la ñuy jegeel te force de l'ordre duñu leen gis mm-hmm. waaye li ñu jaaxal mooy pique bee ñu nekkoon ak force de l'ordre ñoo doon ñoo doon jiitle xëy na nag dañ leen a jox si diggante bi ay anti dooma gis ba ba ba ba ñu taxaw ne ñoom ñooy bokk ñu ci ñoom wala wala tamit ñoom ñu taw di tirer contre population bi man dama jàppoon ni ñooñu su fekkoon ni ñoom ñooy tirer <laughs> uh-huh. contre force de l'ordre bi da ngay dégg ñu ne force de bi jam nañ ko uh-huh. waaye yow eh, eh, population bi rek ñoom ñooy faatu ay balu bopp ay balu bët ay balu tànk ay balu biir uh-huh. yow booy tiire sax nga door coup de sommation. jàngal nañ ko nit ki aussi mm-hmm. bu dee bu dee tiir bi par exemple bu dee nit ki xale bi victime bi. waaw mm-hmm. du du ci ginnaaw lañ koy jamee. ça ko dire lay jam si kanam ça veut mu sa kanam. mais absolument yow bal bu ñu la ko dooroon ci biir <laughs> da nga ne kii dafa doon def lii. Mm. waaye balu ginnaaw balu ndong mm. ay nopp <laughs> yooyu noonu. Uh-huh. mais ko nañ waxtaan. léegi lépp lu ñu génn nag. Mm-hmm. ñun ñi xam na nu ñu ko génne parce que fii am na fi autopsie bu jàll da ngay gis koo xamante ne day certifié wax ak yàlla rek ne bal bii balu réel la. Mm-hmm. nooy ay balu réel. Mm-hmm. yow yow gaz lacrymogène rek nga xamante ni mu mel bu duggee ca bàkkan xaw nga faatu. doo leen yem ci gaz bi. Mhm. wala ngeen utiliser seen i livre mais quand tu en France wala ci yeneen dëkk yi da ngay gis gars yi dañuy jàpp force de l'ordre di leen di dóor di leen xëpp suuf doo gis benn bal bu jóg. te ñu ne waa France ñun si la ñuy nampé Macron moom moo yor ween bi ñuy nampé ween bi Macron yor di koy nampé Macron di doxal démocratie yow nga ne doo doxal démocratie nga jël démocratie sopp ko doole doole cratie jël moom bu dee arrangé nañu ñu daal di xool si yow bu dee arrangé wu ñu ñu bàyyi la mhm. Aïssatou xam nga man lan laay wax kii croire parce que tamit bu fekkee ni ku ci nekk da ngay euh, joxe benn chiffre ka des euh, joxe leneen mais tamit euh, mémorandum bi nga xam ne jot na génn yow noo ko gisee man damay wax rek comme comme fi ko fi ko David Dakar parce que mémorandum bi mën nañu wax ne man man d'accord naa ci parce que tey c'est pas c'est pas parce que on est on est on est de Pastef wala on est de on est on est neutre mais juste que tey am na réew mi fu muy toll foo xamante ni tey dañu seetlu que ni gouvernement bi yàkkamtiwuñu lu dul joxe ay chiffres mm-hmm. ñoom ñoom daal yàkkamti nañu lu dul euh, ay mort ay émeute am ñu génn joxe seen ay chiffres ñoom sans pour autant vérifier loolu loolu seetlu nañ ko fi ci ay ay ay cas yu bëri nombre de morts yi day am ñu ñu ñu wàññi ko joxe joxe joxe ci bàyyi li ci des parce que juste tout simplement dañuy rafetal xawma doo doo doo doo xam mhm. ñoom li li li dox ci seen euh, li ñu li ñu bëgg ñoom mais en réalité euh, sénégalais sénégalais yi war nañu war nañu war nañu xoolaat seen bopp mhm. war nañ xoolaat seen bopp bu baax parce que on peut on peut pas concevoir que ni Sénégal lu fi xew rek faaw mu am lu ci rax te yow gouvernement bi yow parewoo pour jël pour jël sa ay responsabilité face à cette situation donc sénégalais yi war nañu war nañu xoolaat seen bopp de même que gouvernement bi mhm. ñoom aussi am nañ ci part de responsabilité parce que tey lu toll ni gouvernement ñëpp bàyyi la xel mhm. nga ngay génn di wax loo xamante ne ni euh, on peut dire que c'est pas c'est pas vrai. Mm-hmm. donc euh, voilà am na ci yoo xamante ne nii rafetul. dëgg la jot ñu bàyyi si xel waaye leneen lu mënta ñàkk moo di euh, mbirum euh, match démb bi xam naa foofu la ñuy jaar sax te laataa loolu dama lay bàyyi dem Demba démb sànq dégg naa la nga bakk bakk yu rëy ki nga xam ne moo di Sadio Mané. waaw Sadio Mané xam naa ne war na la baatare. Mm-hmm. xaw ma woon ni géwél sport. c'est la patrie qui parle c'est la patrie c'est le patriote qui parle le mm-hmm. patriote. Hmm? l'amoureux de son de son pays qui parle comme yow comme keneen ah yow la yow doo doon supporter. Ah, bu baax coupe du monde coupe nekkoon. maa ngi woon fii di supporter yi ndeysaan mun fekk ñu mariste yenn saa yi ñu dugg appartement yi fekk tamit ñu ngi ci liggéey bi c'était très compliqué mais quand même euh, da ngay gis sénégalais yi dañuy ànd ak euh, bëgg-bëgg. Mm-hmm. dañoo gëmoon li nga xam ne moo di Lions yi ñoom <laughs> xam nga am na ñoo xam ne. Euh, nee nañu Sénégal coupe bi ngeen doon xëccoo mais sénégalais yi ñoom dañoo gëmoon ni coupe bi ñoo ko moom. Mm-hmm. laata coupe du monde bi di tàmbali ma bàyyi la ngay yeggali. léegi Bellingham Bellingham bu ñuy dóor di ah Bellingham Angleterre. <laughs> non football football Angleterre bu Sénégal. non boobu dañoo kii rek mais beneen yoon incha allah. <laughs> non pare wu yoon ko. non non dinañ retour mais démb dama kontaan mhm. parce que. Mhm. Euh, dafa am ay joueurs ñoo xamante ni boo déggee football. Mhm. yow sa xel day dem ci Brésil. xam nga Brésil moo ëpp moo ëpp euh, titre. ci wàllu champion coupe du monde. ñun dañuy wax ne ku dóor champion. d'office da ngay doon champion. Mhm. du dëgg donc nous on est double champion. Mhm. champion d'Afrique champion du monde. Mhm. te Sénégal il faut le dire tey ay joueurs ñu ngi ci club yu mag yi. ñu ngi également ci grand championnat yi. ñu ci ligue des champions ci ligue égale pro. léegi tey ñu ci war a liñ ci war a noter mooy. Euh, sénégalais bi aussi ndeysaan ñun on est trop euh, dans le jugement. dans le jugement il y a pas une semaine. on a traité Aliou Cissé de tous les noms non lui day tâtonner xamul dara deful dara mais hier quand on a battu le Brésil mais tout le monde était là à applaudir Cissé mhm. mais maintenant moom l'erreur qu'il doit pas faire c'est quoi c'est d'être dans les détails parce que temps yi maa ngi koy dégg muy comme si muy tontante rek to da koy tardel yow li ah non il faut mu bàyyi loolu Cissé Cissé vous êtes quand même el tactico mhm. waroo nekk dans les détails détails yi ngay nekk